solo la ci lislaamu senegal surtout fi àdduna bi toll tey bëggatuñu kuy jaamu yàlla jaamu bu sell bëggatuñu gis itam ku nangu gëstu ci li borom wax te loolu borom diine yi ñi xam-xam-xam ñi xam téere bi ñoo ko war a sàmm état bi ànd ak ñoom sàmmale leen loolu mos naa fi wax ci benn gàmmu Sénégal soxlawul xam-xam bu bees bu jëm ci diine am réew bu toogee junni at diine di fa dox suñu toogee ba tey ne dañuy jàngal diine bu bees dama ne loolu wàllu colonisation la spirituelle te kenn waru ko nangu te réew yi bàyyi ñu dugal leen ci ay philosophie yu bees réew yooyu yëpp tey gis ngeen nañu mel yépp a sooxe kon nag sëriñ bi ñu ngi ñaan lii di law ci daara yi ñu gën koo yaatal nit ñi ñu bañ a këf seeni xel rawatina xale yi ñu défendre tam suñu diine te suñu diine diine jàmm la diine salaam la te suñu gën di mbindeef joxe na exemple bi ci jamonoom ca Médine accueillir na ay yéefar si jumaam def nañ charte de Médine jox leen seen cër kon kenn warul ñëw Sénégal wala Afrique di fi indi gis-gis yu bees si l'islam en tout cas l'islam boobu ñun bëgguñu ko te dinañ ko combattre dañ ko combattre te lu mu laaj ci wàllu taxawaay ci wàllu nguur gi kon lolu yaakaar naa ne état bi lim ci def ak yeen même combat la ndax bañu yexé Tombouctou lañ fa gis lu jara baye xel la waye lolu yeb nag mën nañu dal xel ci Sénégal amna lu fi Yalla def ndax ba légui mu ngi wër kon Yalla bu mu fi yexé mukk euh Yalla yag fi def jam ak sutura ak teranga